Momath Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Momath Cissé nga nekk vice président bu euh, euh, Ascosen euh, ci jamono ji ñu gis ni nag sucre bi maanaam sucre en poudre bi pour gis ko ci marché bi nekk na lu jafe-jafe te yenn commerçant yi sax dañoo jël prix bi yokku ko consommateurs yi fi ñu toll nii ñu ngi koy jàmbat bu baax ci jamonoy koor gi Ascosen lan la def ci côté boobu. waaw ñu ngi koy naqarlu parce que waxoon na leen ne nañu jël say disposition parce que sukar war dina manqué en côté jëluñu seen disposition ba lii am kon ñu koy naqarlu waaye nag ministère bi rattrapé wu na parce que fan yii mu matagul ñaari fan jël na vingt mille tonnes jox ko ay quotataire yoo xam ne dañuy importer sucre daal di ko dugal mais ñu commencé nañ euh, fay douane je pense que d'ici deux trois jours marché bi dina euh, am sucre importé bu boobaa tension bi dina gën a wàcc bu boobaa ñu mën a respecté prix yi waaye nag situation bi naqarlu nañ ko parce que weeru koor ministère du commerce waroon na jël disposition yi ba lii du am waaw mais nag rattrapé wu na joxe vingt mille euh, tonnes euh, yoo xam ne commerçant yi commencé nañ ko génne port ragal naa ne fekki fan marché bi dina ñëw à la normale ba ñu mën ko respecté parce que cinq cent soixante quinze francs le sucre en poudre kilo bi war a jar fii ci Ndakaaru bu dee ci yeneen régions yi dañ ciy teg rek variation transport mais commerçant actuellement ñu koy jaayee sept cent huit cent wala sax lu ëpp loolu mais loolu parce que tout simplement jaaduwul te kuñ ko jaay bu fekkee ne mën ngaa woote corps de contrôle ne ñëw mais parce que dafa amul tension bi waruloon am loolu laa na xarlu déjà ci njëlbeen. ci njëlbeen léegi ñu wax si wàllum location bi am na euh, bailleur yu bëree bëri euh, mesures yi nga xam ne état jël na ko pour wàññi location bi euh, bailleur yi wuñ maanaam respecté wuñ mesures yooyu le yow waa ASCOSEN est-ce que yéen a ngi jot ay plainte est-ce que nit yi ñu ngi ñëw si yéen pour dénoncer mbir mi. li ñu gën a jot lu lu lu ñu gën a jot ci ay kii euh, mooy ay demande d'information maanaam ku wax ne def bi ñaata la wala ki wax ne bi suma bailleur bi dañoo jël li may def mais nag am na ay plainte loolu moo tax ma ne CONAREL bi nga xam ne moom lañ euh, tabb war nañ ko rendre fonctionnel le plus rapidement possible pour que mu mën a jël en charge préoccupation yooyu euh, bu fekkee ne nag bailleur bi dafa bañ a jël ñetti possible ñeent mën nga ko am mën nga ko fay par Orange Money wala de mën nga ko yóbbu police mën nga dem tribunal ñu jox la benn papier nga yóbbu ko dépôt et consignation waaw loolu yëpp euh, possibilité yëpp pour. Mhm. par rapport ak mesures yi yéen waa ASCOSEN ban appel ngeen di lancé lan ngeen di wax euh, bailleurs yi ak tamit lan ngeen di wax lokateer yi. locataires yi nañu fay parce que ku jël kër jàmbur da nga ko war a fay. bailleurs yi itam nañu jéem a ànd ak yërmande ba bu ñu leen joxee ñu daal di jël. ndax gis nañ ne prix moo yokk woon trop de deux cent pour cent par rapport ak construction yi moo tax état bi nga xam ne dafay tëddee njaaxaanaay daal di def bees bi loolu rek la ñu ñu ñoom ñaar ñëpp ñu war a dem ci compréhension te bañ a dem ci ay xat-xat Euh, ñu wax tamit ci euh, yokkuteem euh, transport bi ñu gis ni fi ñu toll nii nag askan wi sonn nañ parce que waa afti ñu si baree bari wala pratiquement ñoom ñëpp dañoo yokk prix yi mu nekk loo xam ne nag sénégalais yi digéré wuñ ko comprendre wuñ ko asko seen lan ngeen mën a wax ci côté boobu ak lan ngeen. ci def bi ko bi ko bi ko AFTU defee naxarlu nañ ko wax nañ ko autorité bi autorité bi ministère des transports wax na bari ci démb ne. woo na AFTU parce que transport ci Sénégal décret moo koy fixé et que ragal naa ne cinquante francs yooyu ñu tegoon gën nañ ko wàññi ba indi ko ci defe naa trente cinq francs mais loolu yëpp fekk defuñ décret bi mun naa wax ne balaa balagut donc ñu demandé ministre transport décret bi ñu activé ko bu ko defee ku dugg ci afti wala ku dugg ci oto bu nekk nga xam ne dégg nga maam euh, di nga war a fay wala wala war a war a war a fay cinquante franc naqarlu nañ ko nag parce que afti woo leen jël euh, ci boppam augmentation transport bi parce que loolu ay problème rek lay indi. est-ce que entre usager bi ak transporteur est-ce ñoom tamit mënuñ leen a comprendre du fait que euh, carburant bi dafa yokk ñoom tamit faaw ñu yokk paas yi pour mën si. mais loolu yëpp loolu yëpp état bi moo waroon a proactif état bi moo war a proactif. Mhm. nekkee njaxanaay ak loru usager bi di loru loolu bu fekkoon état dafa njëkkoon a jóg kon loolu du ci am. d'accord am na tamit euh, client wu orange yi ñoom fi ñu toll nii tamit ñu ngi ñaxtu parce que gis nañ ne internet bi li ko orange di jaayee paas yi dafa cher jéggi na dayo dafay gaaw a jeex en tout cas mu nekkaat beneen xeex boo xam ni sax gis nañ ko te côté euh, Axif daal di koy euh, yëkkati ñoom Famara Ibrahima Cissé naka nga gisee loolu est-ce waaw ban action lañ war def en commun pour que dana am opérateur bi reculer mais loolu il faut que population bi yëpp daal di jog jàppale bu ko defee opérateur bi mun a reculer d' accord comme ça buñ ne bu ngeen ne nañ boycotté gars yi mën a boycotté côté boobu ngay waxee wala. non non nombre lépp luñ ci mën a xalaat rek dañ ko wax population bi dafa defee population bi adresse voilà euh, actuellement euh, Ascosen lan lay def ay activité parce que consommateurs yi sentir tuñ bu baax. dañuy nekk activité activité yu ñuy def au quotidien la. waaw dans chaque région et département suñu nit nga fekk recevoir ay plainte di ko instruire bu fekkee plainte bi mun jaadu na ñu ànd ak yow wax ko ba faj bu jaaduwul nag ñu xam ne jaaduwul ñu notifié leen jaadu na action euh, association défense des consommateurs muy Ascosen fait une action continue sur le terrain. d'accord mais ñu bëri dañu gis ni dañu jàpp ni euh, Momar ndaw mi nga xam ne mooy njiit bi euh, dafa jege loolu nguur gi moo tax ñu jàpp ni nekk la too leen fi consommateur yi lan ngay tontu si loolu. bi ñu koy bi ñu koy bi ñu di ko yóbbu kaso boobu mu ngi woon conseil présidence loolu mooy tontu li ndax fu ci nekk rek moom xamal na boppam ne la fa teg moom lay défendre. d'accord loolu rek nga si tontu. waaw loolu rek laa ci mën a tontu am seen amatul njëriñ nañ ko tas wala ñu xool nu ñu changé bi. waaw ñi nga xam ne ñun ñuy soumettre suñu problème ñi nga xam ne ñun ñuy soumettre suñu problème. waaw. ñoom xam nañ ne na njëriñ parce ñu leen di résoudre problème bi. kon tey jii par exemple Ndeye Comba facture ndoxam cher trop ba mënu ko fay ñu indil ko facture bu jéggi dayo tey jii bu ñëwoon ci ASCOSEN naka ngeen koy jàppale. bu compteur ba baax na mhm. bu fekkee ne compteur ba moo bon ñu changer ko compteur lu ci nekk rek dafay am démarche objective ba ñu mën a résoudre problème bi état bi jëlee ay euh, matukaay ay jumtukaay pour wàññi dund gu cher gi di location bi di denrée yi euh, dañu waxoon ni dinañ recruter mille contrôleurs yoo xamante ni ñooy nekk ci terrain bi euh, fan ngeen ci toll ci mbir moom. commencé nañ ko toll waaw. du commerce woo na association bu nekk jox nañ ko vendredi bi mooy dernier délai bi euh, maanaam ñetti nit par association. am na aussi plateforme boo xam ne ubbi nañ ko ku ci bëgg a dugg nga dugg ci ki nga xam ne da nga maam remplir nga condition yi te am chance mën nga cee bokk ci mille volontaires yi. comme ça ñu appuyer ministère du commerce. kon d'ici combien de temps ci la mille volontaires yi di wàcc. ci terrain bi mën a xool mënu ma la mënu ma la ko wax yoruma décision bi. mais li wóor daal ñun jox nañ leen li nga xam ne ñoom lañ leen war a jox processus la parce que foog ñu former leen pour ñu mën a assister un peu personnel du ministère du commerce. voilà kon Momar Cissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. merci beaucoup. voilà may fàttali yow yaay vice président bu ASCOSEN président bu.